adopté pour xeex li nga xam moom mooy feebar boobu mais aussi dafay tax euh, ñu rappelé waat li nga xam ne président Macky Sall def na ko ci wàllu yor wërgu yaram euh, jaarale ko ci couverture maladie universelle tey ñu dem ba li ñuy wax ne que le taux de couverture sur les différentes composantes mun nañ leen évaluer à presque 53 virgule 2 pour cent loolu aussi am solo ndax xam nañ ne que tey boo nee xale yi nekk Sénégal ñi nga xam ne amaguñu juróomi at mën nañu faju te du ñu fay dara nga wax ne que ñi nga xam jigéen ñi nga xam dañu ëmb seen césarienne mën nañ dem ci hôpitaux yi ñu césarienne leen te du ñu fay dara hémodialyse aussi mu gratuite euh, mag mag ñi nga xam ne aussi am nañu 60 ans ñu mun di leen di jël en charge loolu yëpp dafa am un impact social mais aussi nekk un moteur de développement dans une communauté parce que nit ñi bu ñu amul wërgu yaram mënuñu xalaat la ca des donc ba tax na dañuy encouragé waat waa CMU di féliciter directeur général ak ay équipe di wax ni ko aussi ñu ngi à leur disposition pour que fépp fu ñu mën a nekk en tout cas service ministère bi yëpp pour mën a wuyu suñu tur muy développement communautaire mais aussi mën a wuyu suñu tur muy ko équité territorial ak social dinañ ci taxaw te maa ngi ñaax personnel bi yëpp partout dans le pays ñu gën a dëggal loolu équité boobu gën a mën a nekk une réalité ndax loolu mooy vision président Macky Sall. alhamdulilah rabi alamin ba ñu yàlla mayee ñu organiser tey suñu euh, troisième édition euh, célébration octobre rose l'agence nationale pour la couverture maladie universelle dafa ne dafay apporter moom it sa pierre à l'édifice parce que gis nañ ne jigéen ñi dañuy soxla vraiment. Euh, ku leen jàppale ci feebar boobu gis ngeen ni feebar bi ravage yi muy def ba tax nañ ñun chaque année dañuy organiser euh, euh, des séances de dépistage l'année passée tolloon nañ si téeméer la ñu amoon ren dem nañu ba ñetti téeméer donc dañuy wax alhamdulilahi rabbi alamin ba ñu permettre femmes yi ñu mën a ñëw seetu seen wér yaram seetu ndax jàngoro boobu di cancer mu ngi ci seen yaram wala déet donc ñu ci euh, remercier bu baax suñu directeur général et puis euh, à part le dépistage femmes yi nga xam ne xool nañ am nañu tuuti jàngoro wala tuuti infection ci seen yaram dañ leen di accompagner dafa am benn liste bu ñu def pour accompagner leen après ndax ñu faj leen ndax ñu wér ñi nga xam ne amuñu ko nag ñu ne alhamdulilah mais ba tey dañ leen di gën a ñaax chaque fois ñuy seetu seen bu wér gu yaram di bañ xaar rek octobre rose pour def ko ñu initier également une calebasse de la CMU boo xam ne personnelu agence bi yëpp ku nekk ci li nga àttan nga koy def ci calebasse boobu ñu xool koo xam ne euh, soxla na ko war na faju te am euh, ci feebar boobu te amul lu mu ko fajee wala waa Liska ñu jébbal leen ko ñu mën a contribuer ñun tamit ci accompagner malade yooyu. waa ne passée ñun nous étions à cent ay centaines la ñu dépisté woon mais euh, téeméer ren ñu ngi ci ñetti téeméer donc loolu day wane avancé bi ñu def parce que dañoo xool ne euh, bële passé sensibilisation bi desoon na. mobilisation bi desoon na ren nag ñu mettre le focus alhamdulilah rabbi alamina ba suñu directeur général accompagner ñu ba ñu mën a vraiment euh, def liggéey bu rafet bi